finalement dama mujjul mujj ma dem ngir xaar événement bi ndax lenn loo xam ne si dina baax ci waa jeune Daaru Musi yi pour que ñu xam ne politique nekk loo xam si ay euh, affaire noonante la daal politique maanaam kenn ku ne am nga droit far fu la neex mais quand ñu def ko dans la civilité li ñu def nii nag lu am solo la ndax la fait ñu tasee une équipe bu Pastef ak équipe yoo xam ne si benn bokk yaakaar la loolu déjà lu rëy la donc dana tax jeunes yi té buñu génné tam ñu manifester ko ci mbedd mu baña a yem rek ci terrain bi suñu génné kenn ku ne am nga droit kenn ku ne am nga droit par exemple farak la neex mais suñ génnee euh, bu élection yi jéxé ñu xamné wa daru Darou Mouhty ñoo ko seq donc man nak vraiment content na ma ngi ñaanal aussi di féliciter ñi nga xam si moy euh, wa jomay président ci sen victoire ci seen leader à travers le leader ñom cheikhou Cheikhouna euh ak Serigne Abdou Mbacké di leen ñaanal vraiment ndam li dig leen di ñaanaat aussi sëñ Abdou ak sëñ Cheikhouna Bey que victoire bi nga xam si am nañ ko biir Darou Moussi ak biir Sénégal Darou Moussi aussi jot gis ci cëram gis ci wàllam ndaxte kenn warante wu ne Darou a bien voté pour Diomaye président ndax lépp njëriñu Darou Moussi la. am na chantier yoo xam ne si waa benn bokk yaakaar commencé woon nañ ko fi muy ay route ak i piste ñoo ngi ñaan ñu àggale ko nu gën a gaawe di ñaan ñu dolli ci yeneen donc loolu rek la ñuy ñaan di wax ne jeunesse bi vraiment euh, sous la conduite de Sow ak ñi nga xam si àndoon ak ñoom. ñoo ngi leen di vraiment encouragé ci dynamique bi di leen wax nag ñu gën koo defaat yeneen édition yëpp doole yoo xam ne danañ boole jeunesse Darou Moussi yëpp ndax ñëpp waa Darou Moussi la ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm presse bi di gërëm vraiment ñi nga xam si ñoo ko ñoo ko taxaw di wax ne suñu xol sedd na ci liñ ko jël ci turu suñu leader Modou Diagne Fada ak euh, monsieur le maire Madiop tey ak le maire Pape Fall ñi nga xam si ñooy responsable LDR Yeesal ànd ak Abo Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar yëpp ñoo ngi leen sant di gërëm jërë ngeen jëf ñëpp dem wuti yàlla def euh, euh, ci coobareem ñenn gañe ñi ci des ñàkk ah ñu xale yi am conscience su Daaru Musi moo nekk au-dessus de tout ñu dajewaat wax ci lu mel nii def lu mel nii kon duñ def lu dul sant yàlla rek di wax ni mënuñoo am lu dul lii ndax euh, buñ demee ba xol jóg yaram tàng xel rek moo fay walloo ba xel ñëwaatee ñu daje Anda xam ne ñun ñoom bokk ndey ñoo bokk bàyyi lii moom c'est une initiative que je salue lu lu rafet la te lii moo war a am ndax lii mooy Daaru Musi ndax ku xool Musi niñ ko fondé ak cëslaay ak borom daaru nga xam ne bi muy sanc Daaru Musi suñuy maam la àndaloon ñu meññi suñuy bàyyi ànd ak seen i ba ñun ñu meññi ñun kon li bu fi amee lu jaaxal nit ñi lay war doon kon leneen lu dul lii rek mu waru fee maanaam lu dul kon li dañ koy sant yàlla tey wax rek yàlla na sax yàlla na sax bëgg-bëgg na wuute yéene man na wuute

fas yéene leen nag accompagner leen ci initiative yu mel ni te parce que ça c'est une initiative citoyenne parce que day dàq saytaane indi ak cohésion indi juboo te du am lu lu njariñul Daaru Muxti kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë leen jëf waaw waaw loolu moom encore une fois mbégte la te it euh, en même temps ab charge la ndax la population s'est exprimée te niñ exprimé wu c'est un message yaakaar ni kenn wër ci dem ak euphorie dañ responsabilité war a dem ak dal responsabilité mesurer la gravité de la charge parce que boo xoolee li ñu expression bi population bi def am message la ñun nag ñoo war a décoder message boobu jéem a wuyu ci population bi ci fi population bi fi mu doon nii lan lañ soxla bi metti na nit ñi sonn nañ bi te it eh, ñu ci économie employé bi employé bi problème la fii ci Darou Moussi kon yaakaar naa lii waruñu koo def ndam loo xam dañ koo war di nekk di nguuru wala di banneexu wala di foo wala di puukare am message la boo xam ne si yaakaar naa ku comprendre message bi sa xel wërta dal war ngaa saa yoo di jéem a liggéey ci lu saafara bëgg-bëgg askan wi message boobu la ñu ñu envoyé ku ko comprendre nag mën nga noppalu ku ko comprendre nag

Eh, match bi mom dafa bolé ñaari mbir da nga da nga da nga mëna tagat sa yaram di nga mën aussi yi nga xamanteni mo fi jaaroon jall te xaju fi dina tax yooyu yëpp ñu faté ko sant nañ bu baaxa baax parce que loolu wané na ni gannaaw politique beeg lu mëna doon amna na luñ bokk loo ne mo gëna a moy mooy borom daaru Muxti ño bokkat dëkk bi encore donc sant bu baaxa baax lañu def di ñaan activité yu melni ñu di pérenniser parce que dëkk bi dara xaju fi waaw tay ji bo xolé wa passé fi

ñoom ñëpp di yëngatu ku ci nekk bëgg a en un mandat présidentiel ngir defar réew mi waaye it bu ñu defar réew mi koom yañ koy defaree ak lépp bu ñu sañoon Darou Mouhty lay ëppee donc sant nañ bu baax a baax tey koo gëj a gis gis nga ko ñu profité ci occasion bi di jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak lépp loo xamante ni jaar na fi te xaju fi woon ñu def ko wala suñu borom def ko wala ñun parti bi ñu bokk ñu ngi jéggalu askan wi yëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex ak taysiir ba borom Darou Mouhty mii nga xamante Sëñ Tuubaa ko waxoon ni ko sanc lu dëkk tudde ko daaru lu la fa dama koo amul ñu bokk ci jëmm yi matérialiser loolu parce que dëkk bi ñun ñu bokk ceeg ñu bañ cee bokk li sëriñ bi bëgg dina am ndokk ba yàlla dimbalee bañ engagé wu ci politique fas yéene lépp loo xamante ni infrastructure lay doon wala lépp loo xamante ni luy jëriñ aw askan la wala bien-être doomu aadama ñu mën caa bokk ñu ngi sant bu baax baax di gërëm ñëpp di ñaan bépp ndaw bu nekk Daaru Muxti yore entreprise yàlla defal la ci tawfeex comme mbay comme waa comme le président Mame Thierno Lo parce que gis nañu lu fi xew di nga ko yaatal di ko buñ sañoon suba nga bokk ci organe de presse yi nga xamante ne ñooy gën a mag ci réew mi bokk ñuy sago ñu ngi sant bu baax a baax di profité ci occasion bi di gërëm sama xarit l'ami du président euh, waaw waaw loolu loolu loolu li ma ciy wax mooy mbay euh, notre cher frère euh, Cheikh Sow daanaka tontu na ñëpp parce que buñ bàyyi woon coow yi fi amoon ak yooyu yëpp mu continuer mën naa am ay haine yoo lii li tax mu jara sargal gën a jëme kaw mooy ñun ñoo ko def Sénégal Sénégal fu nekk amoon na tension ñaar ñu bokk ndey ak baay kii far Pastef kii far Benno Bokk Yaakaar duñ tuddante exemple la moo xamante ku nekk mën na ci jaare ba tey ji nga mën def lu mel nii ba ñu woon démb ñu juboo gis naa ba ay ñoo xamante ne maa ngi ñoom amoon nañ problème bi ma leen gisee léegi dama leen nuyu ñu ree ma ree donc loolu mooy wane am na leen lu gën a kawe euh, politique beeg yu ni mel yoonu parce que loolu day wëy ça passe boo xoolee ay jamono am na ñoo xamante ne président Modou Diagne Fada lañ àndal ñooñu ñoo jugee tey ji dem ci maam Thierno Lo am na ñu nekkoon ci maam Thierno Lo ñoo ànd ak seen Jili Mbacke am ñu nekkoon ñoo xamante ne ñoo ànd ak tey Bay donc loolu day wane ni képp kuy yëngatu rek nekk ci biir dëkk bi rek tey mën nga ànd ak sa morom parce que ñun li ñuy défendre mooy intérêt dëkk bi donc fu ñu jàpp ne foofa bu ñu fa demee lañ bëgg donc ñu ngi sant bu baax a baax ñun amuñu benn mbir ba nga xamante ñu ngi koy jàppal benn nit ci biir dëkk waxuma la ab responsable politique président Modou na ci dëkk bi li muy dégg wala li muy daj lépp bëgg dëkk bi moo ko yóbbee donc lim amakus néew mënoon na cee dund moom ak njabootam te am benn jafe-jafe président maam Thierno Lo la même chose Djili Mbaye la même chose Thierno Mbaye ak ku ci nekk da ngaa bàyyi sa liggéey ñëw wu donc ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di lu seen teewaay di ñaan daal lii yàlla na yegg te groupe bi

ay extension day war di am donc bu fekkee maam Thierno Mbaye dem na suba góor gi mën naa ñëw wala Cheikh Sow wala ganaaw suba Alla Diagne ñëw donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla jàmm sax daar muuti suñu jàmbaar ja maam Thierno Birahim yàlla na yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem merci à tout le monde étaan rajim sof tuuti rek ci ay kaddu Moustapha Amari ndax kaddu moom gënu koo mën a rafet waaye balaa booba ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal ñaan Cheikh Mamadou Bachir ay ndaw lañu nag ay ndaw fu nekk dinañ yëngatu waaye balaa boobaa di baal ñëpp tey baal ñëpp àq di ñaanal bu baax mboolem kilifa diine yëpp bàyyiwun kenn ndax ñun ala kuli alin ay taalibe doon ala kuli alin ñu jëfe ndigal la ñuy doon loolu la yàlla dogal ci ñun waaye di profité waale di ñaanal bu baax ak a ñaanal ak njéggal Mouhamed bun Abdoulaye Dione loolu ñi ngi koy ñaanal ci daje yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak weeru kooru màgg wi nga xam ne ci la génne àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ci jéggal ko bi yaay Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam di wax rek ci dëkk bi dëkk bi ñi ñoo ko bokk li Moustapha Amar wax loolu mooy li waram dëkk bi képp koo xam ne nii yàlla dogal na ni nga nekk fi sa wàll nekk fi war nga mbokk ñi ñuy doxal dëkk bi noonu mu ko joxee ñi nga xam ne ñoo doon takk ndombay tànk ci nguuru Abdoulaye Wade ci nguuru Abdou Diouf ba ci nguuru Macky Sall ba ci nguur gii fi nekk di nguuru président Diomaye ñi ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka taala yàlla si daaru mus si jege amancé ba faw jàmbaar yéen si mu daaw bal sama turandoo daan wax naan dugg naa daaru muxti waxtu wu ne génn daaru muxti waxtu wu ne ndax bëgg daaru jekk ñi ngi ñaan nag ñun ndaw yi ñi bokk ci ñi jegal daaru mus waaye bañ a bokk ñi nga xam ne nii dañuy jëriñoo daaru mus ci bit te duñ jëriñ jaar li war daal te war a am mooy ñu bokk ndey bokk baay bokk laxasaayu bokk fu ñuy roote bokk fu ñuy sotti bokk fu ñuy jëlee président Modou Diagne Fada nee naa ko man duma ànd ak yow ci politique ndax bokkuñu gis-gis waaye bu projet xasee jàll ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bëkk dem rek bi ñu nee suwale korité bi ndaje dajee ñu saafonte baalonte ak bégalante daarum si moom benn bopp la ñu ngi ñaan ci dara jëy si Moura Ball nag yàlla defal ñu ndam ba yaakaar yi am ci président Ousmane Sonko am ko ci président Diomaye suñu boroon defal nu kàttan ñu bokk ñi nga xam ne nii dañuy jëmal daal mu si kanam di ñaanal baax Cheikhouna Ahmadou Bamba Bey di ñaanal maam Thierno Birahim Mbaye di ñaanal askan wépp di ñaanal ndaw yi nga xam ne ñi ñoo àndoon ak ñoom di sonn ba tey ji yàlla may ndam ndam loolee yàlla na ci daaru musi gis boppam di jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi baalu ñëpp àq tey baalu ñëpp àq maaleykum salaam wa rahmatullah du Kara Xeye Darou ma asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, ñëpp ñuy seetaan à travers euh, Yegle TV ak Baye Média ñu ngi bu baax di leen jaar euh, Cheikh Sow la nekk capitaine benn Bokk Yaakaar moo mon ami Moustapha nekk aussi coach ñi nga xam ne mooy waa Pastef

ñu japp ne itam aduna bu dee dox ba ñun jeune yi ñu dugg ci langue politique lool mo wara mo wara moo suñu digënté ak ñi nga xamni ñoy suñu adversaire politique yi moo itam bi ñu génnee ci élection yi ñu gisoon amna ben tension bo xamné élection yi amon nako ci jeune yi ñu xalaat ne loolu warul demee noonu parce que ñu ñoo bokk Daaru moti bo dé xol ñu ci bari itam ay mbokk lañu te itam ci Thierno Birame bi mu ñëw suñu mam la andulon ñëw fi ci Daaru moti 1912 ñu japp ne itam lu rafet lool dafa wara continuer té politique waru ko yaax ñu xalaat ne ñun wa ben bokk yaakaar wa Pastef war nañu mëna dajalo ñew def benn masse de gala boo xam ne mboolem leader yëpp dañ leen ci woo woo ci jeunesse bi yëpp itam ñu ñëw ñu xam ne ñu bokk ndey ñoo ñoo bokk baay te biñ ko commencé itam ñun ñi waa benn bokk ak waa Pastef mboolem leader yëpp dem nañu fa dem nañ ci docteur Cheikhouna Bèye dem dem nañ ci monsieur le ministre Modou Diagne Fada dem nañ ci itam euh, euh, monsieur Thierno Mbaye dem nañ ci euh, honorable député Daba Wañaan ak Serigne Djil ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di yëngu ci politique nekk ay leader dem nañ ci ñoom waxtaan ak ñoom fu ñu fa dem itam vraiment da nga koy rafetlu sant gërëm te xam ne ñoom ñoo bokk Daaru Muxti te lu rafet rek a fi war a am moo tax daal ñu woote woon ko te itam li taxoon ñu woote ko wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe suñu jot parce que yi ñëw nañu def nañ ko ci jàmm mun xeex mun xuloo kaf nañu rey te itam loolu la ñu fas yéene continuer ñu xam ne Daaru Muxti lu rafet rek fi war am lu ñaaw war a fi am loolu daal kon am nañ ci mbégte bu baax a baax euh, waa adduna bi waa Daaru Muxti man la Moustapha Cissé responsable politique euh, Pastef comme ni ko sama naataango bi di waxee muy Cheikh Sow benn bokk benn bokk yaakaar Euh, marché bi liko sababu mom presque mën naa wax ne wax na lépp parce que bo dee xol daru Moussi yag nañu def politique ta à chaque fois ay euh, ay joutes électorales am fi dañuy gis né ay violence dafi am ba des fois sax ay mordom di fi am te comme que ñun nak dañu bëgg def politique autrement motax ñu lancer li di marché de gala bo xam day day bolé ñi di wa opposition bi ak wa pouvoir bi pour ñu gëna wara bolo surtout la jeunesse parce que bo dee xol ñun ñoy l'avenir du Sénégal ala kulli hal ëlëk ñun ñoo fi ñun ñoo fi ñoo fi nekk ay responsable politique donc ñun suñu biir war na rafet war na ñoo waxtaan suñu biir même bu fekkee dañoo am opposition euh, noo xamante ni moom la ñuy defee suñu débat politique mais dañoo gis ne ci réseaux sociaux yi ñun ci ñun ñi nga xam ne dañoo bokk Darou Mousty dañuy dañuy dañuy dañuy saagante di xastante te loolu yàpp yàpp naan du politique bu bu sen te du loo xamante ni tamit ñun waa Pastef loolu la ñuy woote moo tax tey jii wax dëgg yàlla ñu def match bi nga xam ne mooy match de match de gala ànd ko ak waa benn boo yaakaar pour wan ne waxe ne dëkk bi ñun ñëpp bokk benn lañ benn lañ euh, même bu fekkee dañu am divergence politique waaye tamit benn lañ parce que boo dee xool ñun ñëpp ay mbokk lañ parce que ku ci xew la benn xew muy naqar muy bànneex ala kulli xaal da nga gis sa morom ca wet ga donc ñun benn politique bi ñu nekk di ci di ci nekk ci biir di di di def lutte nañ nañ xeex xeex boo xam ne xeex bu seen la mais au lieu que ñu nekk fi di xiiroo ko nga yaakaar naa loolu jëru ko fi te suñu leader yaakaar naa ñu ci bari duñ woote loolu peut-être fougue de jeunesse bi nga xam ne mooy nekk si ñun moo ñu war loolu moo tax ñu woote lii pour tempérer en tout cas les esprits ak euh, raffermir en tout cas les relations yi nga xam ne moo amoon ci entre les jeunes ñu gën koo kon ne mu gën a perdurer donc euh, ñoo ngi koy rafetlu wax dëgg fi yàlla parce que autorité politique yi nekk ci Darou Mousty yëpp ñëw nañ fi teeruñ fi euh, te jeunesse bi tamit comprendre nañ le message bi nga xam ne moom lañ bëggoon lancer ñun ñi nga xam ne ñoo les jeunes politiciens donc ñoo ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ fi ak ñi fi bëggatoon a ñëw te amoon yéen pour ñëw fi ñoo leen sant bu baax a baax a baax di baalu ñëpp comme que ci koor gi lañ ne euh, koor gi lañ génn képp koo xam ne wax nañ ko loo xam te ni waruñu ko wax ay propos yu wax dëgg yàlla ñoo ngi koy baalu àq euh, di ko baalu àq euh, di ñaan yàlla def tàppe xol yi ñun ñëpp nekk benn jërëjëf